nous euh, nu ma ko rek euh, suñu invité bi euh, di donc le coordonnateur du mouvement Al Khadimia, di le professeur Mamadou Niang Mamadou Niang gannaaw donc bu ñu la dalalee ba pare alors donc déjà dama bëggoon rek vraiment nga ñëw ci justement lan orientation stratégique du mouvement Al Khadimia ak justement lan mooy mission. waaw jërëjëf. Mhm. ñu ngi leen di biiral am nuyoo di leen ziyaara. Mhm. di wax ne Al Khadimiyyah. muy mhm. génne ci gémmañu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ni le général de Bamba. alxadimiya euh, moom ni mu ko gisee mooy xeetal nañu ci liggéey liggéeyal kan ki jara liggéeyal mooy le sauveur de l'humanité ki nga xam ne mooy malaaz mooy mafda te mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mhm. kon dafa jóg ngir liggéeyal sëñ Tuubaa mhm. naka la koy liggéeyale xanaa ci li bëgg mooy ci mbindéef yi mhm. ak ci diini ji donc loolu daal mooy principe général bu alxadimiya kon dafa ñëw ngir liggéeyal ku tedd ki te xam nga ne liggéeyal sëriñ bi moom sëriñ bi wax na ko fu bare bare bare bare ci ñi ko liggéeyal lee suñu borom di fay waqdi xawaahij alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu wax na feneen tubaali abdul muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati wax na fu bare bare bare ki ko liggéeyal li ko yàlla nar a fay ak ki nga xam ne yoon saa salama nee na ki gën ci mindee fii xayru naa si xaadimuhum mooy ki nga xam ne moo leen di liggéeyal donc liggéeyal sëriñ bi liggéeyal doomu aadama yi ci diine ci mhm. kon alxadim ya mi ngi noonu dafa ñëw ngir dooleel yoonu murit mhm. ngir tam sos ab liggéey bu bees mhm. wéyal li nga xam ne moom lu fi sëriñ bi bàyyi ndax amul diine moom lu bees li fi nekk rek mooy li fi newoon ñu fexe ko yeesal fexe ko dëgëral fexe cee indi li nga xamante moom la ko borom sose woon comme ni Sèye Blade waxoon ne sëriñ moom ba mu ñëwee dégg ñu naan lislaam mu ne al muridiya ñu mm. bari na ah loolu ko dàmmel bi daal luy sos suñu bi wax ne ah, yoonu murid du tarixa mm. suñ tubaab dafa fekk yoon nga xam ne ca la yoon saa salama jaaroon ak i saxabaam yoonu fargay mm-hmm. fargay yi sax a naa ñi yenn gone yi tubaab yi duñ ko xam yoonu fargay yi mooy yoon woo xam ne dafa dem ba xaw a lëndëm ndax ñax yeeg yooyu muuraat ko ba nga xam ne sax xam may toog fii dëgg-dëgg yoon wi uh-huh. loolu mooy yoonu fargay nee na mu gàjj-gàjj ba mu débrouché ko wala yoon wi leer nañ mooy yoonu te yoon woowu mo yoonu siraatal mustaqima hmm. nee mu jaar ca dal ne ko bëgg dem yoon waangi ni kon loolu rek moy li itam hmm. ci biir yoonu murit alxadim yi ngir yeesalal li nga xam mo moom la fi ku tedd ki bàyyi woon hmm. incha allah dinañ ci ñëw parce que man lu ma intéressé la justement te je suis sûr que vraiment sénégalais yi ñu ngi leen bayyi vraiment xel et c'est important alors euh, Moussa euh, de nga ko ak aussi euh, donc Abbas nako ko waaye dama bëggoon justement parce que nak buñu waxé waxee bi effectivement mo la ñëw buñu waxé donc le 11 novembre moy date historique euh, ba date bo xamante ne kenn du ko il a eu mhm. ah, donc parce que fay woné vraiment une victoire victoire de l'islam là alors dañ siy parce que da fay euh, donc célébrer euh, le retour n'est-ce pas de Cheikh Ahmadou Bamba et te at bu ne effectivement gis nañ seen taxawaay par rapport à journée bi ren aussi yéen a ngi koy justement est-ce que mën nañ xam effectivement nan ngeen wajal justement pour bëss bi waaw jërëjëf la nga laaj bu am solo xam nga 11 novembre 1902 mhm. mhm. dafa mel ni lu xaw a réer nit ñi tuuti te date bu symbolique la bu historique la bu remarquable la mhm. mooy sëñ Tuubaa dañu ko jàpp tuumaal ko wax ko lu ne mhm. da ngay fexe guerre sainte refus d'autorité trouble à l'ordre mooy mooy politiciens yi li nga dégg rek bu ñu bu ñu jàppee seen seen opposant ñu koy wax mm-hmm. booba nag li gënoon a garaaw ndax mm-hmm. booba ay média amut amul ay ay société civile mm-hmm. amul dara l'administration coloniale fi nekk ñoo yor média yi ñoo yor société civile ñooy lépp ñoo lay tumal ñoo lay àtte Sëñ Tuubaa ñoo ko tumal ñoo ko àtte li ma wax procès bu gën a bu gën a jeng bi ñu àtte Sëñ Tuubaa mosuma ko gis yow gouverneur bi maa jour tribunal bi maa ngi war a ñëw président tribunal bi man maa lay àtte ci yoon kay te yow dem fee toog yéen ñaar yaa ko tuumaal ñu wut ab juge bu neutre waaye gouverneur Mouté mi nga xam ne mooy euh, le gouverneur général bu AOF e moom mi nga xam ne moom ak Merlin mi nga xam ne mu nekkoon le directeur des affaires politiques nga xam ne gorom la ñoo tuumaal sëriñ bi ba noppi war koo àtte kon sëñ bi ci lañ ko jàpp déporté ko. mais mhm. après avoir entendu le rapport de Merlin et Leclerc. Mhm. et fait comparer Ahmadou Bamba il a été d'avis à l'unanimité mhm. qu'il y avait de l'interdire au Gabon jusqu'à ce que. l'agitation causée par ces enseignements soit complètement oubliée au Sénégal. kon boobu dessin lañ amoon mooy nañ jàpp sëriñ bi nañ ñu na saaba ya nañ ñu nañ defal yoon saa salama. benn ñu jàpp ko rey. mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko sëriñ bi it yooyu xalaat it moo ñëwaat ñu nekkoon nañ ko jàpp génne ko. ngir bala moo dellu seeti bu dee dina dellusiwaat sax kay nañ fexe ba lu mu fi jàngale woon a raaf mhm. na ñëpp fàtteem jàngalem te mooy njàngalem yoon saa sala mooy njàngalem lislaam mhm. sëriñ bi nag dem liggéey fa liggéey bu metti juróom-ñetti at yu manqué tuuti ñu def ko natt yu ne duma ci dellusiwaat ñëpp yàgg nañ ko wax yoonu géej gi lu ne ñu teg ko ci mhm. supplice suñu borom musal ko ci kaw njàmbaaru boppam ak jommi boppam mu dellusiwaat Sénégal indaale sëriñ ci bu rëy ndax ku tukki bàyyi sa njaboot gannaaw boo ñëwee di ngay daale sëric te sëric ba la ci gën a tuuti mooy ijaxal rujuon yi ilaa xaw mi saadatana wala tag fi naa yow ma jamil xalxi nii raana mhm. suñu boroom bala maa dellu ci sama réew mbooleem koo xamante ne da nga a bi a indaale mhm. kon retour d'exil sëñ Touba day dat bu historique màggal Touba nag mhm. mooy départ d'exil moom sëñ bi moom la tànn ngir màggal ko parce que grandeur am moo toll foofu. te kenn mës a gis ci àdduna. du bi yeneen du xutbu du dara koo xam bis bi ñu la war a tegee nattu bis bi ñu la waree mën a teg ay musiba. Hmm. bis boobu nga jàpp ko mos Ibrahima keroog ba mujjee ca sawara wa muy muy muy muy muy yonent yàlla Insa keroog bu ñu ko yëgalee kaw asamaan mu mucc ca tàjjan ko goon ñoo ñëpp ku ci nekk sa bisub délivrance moom nga def sa bisub sant. Hmm. mais sëñ Tuubaa gis bisub nattoom mooy bisub cantam Cheikh Amadou Kora nag tànn bis bi nga xam ne ci la sëriñ bi ñu bisee ci géej gi muy hmm, hmm, le onze ndax li may wax hmm. bu sëriñ bi demoon te ñëwaatut musiba dana am ah, eh, waaw am naa sama génn kii boo wax Dakar dem dikk mooy sëñ Tuubaa <laughs> ne dem dikk mooy sëñ Tuubaa nga dem ñëpp kenn dikkaat du ca nga dem ñëpp ku ku tubaab yi mës a yóbbu Gabon kenn mës a dégg ñu yóbbu delloo si la mel na sëñ Tuubaa lañ yóbbu delloo si ko indem na pattut laggiwut sooxut na mu doon soloo changé wut la mu doon wax bàyyiwu ko na mu doon na mu doon jaamoo suñu borom bàyyiwu ko amul li ci discours am wala ci principe am dara loo xam ne daf cee changé parce que loolu mooy li gën a kom nit ka mën nañ koy bu sax di delloosi ko fekk na booba lam doon wax lépp ren yéene ko waaye lam doon wax shahitu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaq loolu rek la mas di wax katatu fi bëri annii la amadu yadi ila nasara ab bidin maa iwa tiini man suñ tubaa benn ta nasaraan bu may tàllal loxo amut li may wax it mooy suñu borom dong mooy ki nga xam ne moom lañ moom lañ war a jaamu te yoon sa sam la ñu yónni ci dëgg baat boobu moo leen dérangé woon moo tax ñu yóbbu ko tey jii la baat boobu gën a sax tey jii la baat boobu gën a imposant moo tax Cheikh Amadou Kara Mbacké ne tànn le retour d'exil muy date bu historique bu symbolique mm-hmm. ndax date boobu bu amutoon tey jii sëñ Saliou Mbacke mi du feeñ jamono dëgg la Cheikh Mourtada mm-hmm. euh, ni donc mm-hmm. la à la fois mais aussi bésu ko waxee mm-hmm. sa euh, euh, lance question Kande mm. mm. fii zalika fal yu jarri bi waaw mm. nee ku sikki sàkk rek ci tukki bi ak lim ci daj yoon waa ngoog Mm. waaw boo demee lu gàtt di daw <laughs> delsi <laughs> waaw euh, loolu moom moo ko bindal boppam. Ah. mais fi muy ñëw day egg ci wa day delsiwaat ci alxadimiya mm-hmm. objectif bi tey wax nga ko mais mission Serigne Touba moo doon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwoon innama bon istu li utammima makaarimal axlaaqi mm-hmm. loolu moo doon mission bi Serigne Touba di ko mottali. Mm-hmm. ñu gis jamono boo xam ne lëndëm na. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni li muy def ci ndaw ñi bari na li muy jubbanti bari na léegi alxadimi judduwaat ci biir li nga xam ni mooy kuréel yi nga xam ni cheikh bi yoroon na ko mhm. kon tey seen réalisation bi nga xam ne moo leen tax a jóg lan la mhm. ak lu ngeen ci réaliser gum ak hëdëf bi dëgg-dëgg lan la jërëjëf jërëjëf mhm. moo tax li jóg ndax da nga xam lu am solo léegi innama boxe su li u tammi makaarimal la damaa ñëw ngir jikko yu sell yi man yoon saa sall ma dëgër ko kon ku la gën a sell jikko moo la gën a baax. te boo gisee Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni nii li gën a yéeme ci mission mooy ñi nga xam ne dañ leen a dañ leen a bàyyi dañ leen a beddi. mooy réseaux sociaux yi nga xam ne benn dañ di ay anciens détenus wala ñu ay tuxkat yamba mbaa ñu doon ay drogué mbaa ñoo xam ne sàcc lañu woon et cetera. Mhm. ñoo xam ne ay reykat nit lañu woon nga xam ne kenn bëggut leen a gis. Mhm. la gëm ne sëñ Tuubaa bu fi ñëwuñ jamono. léegi bu ngeen njëkk nekk mission première mooy sauver jàmm ndax amar rab rabbi bi an usarria bi annani maladun wa madhun fa man araada al xitli daari fal yalus bihi sëñ Tuubaa loolu la déclaré woon jéemaa donné l'ordre de proclamer haut et fort nga xam ne nëbb ko su ko defutoon am bàkkaar que je suis un asile et ultime recours kon sëñ Tuubaa recours la recours mooy ku jaxle fan nga jëm ku bëgg aw yiw àddina ak alaaxira kaay nga ñëw wéeru ci man moo tax mu ñëw xam ne ñii dañoo bokk ci société bi mm-hmm. ay jullit lañu wala ay sénégalais lañu te kenn wóor leen a bàyyi moo tax mu ne man bu fekkee nee nañu bandi yi ak ak ak may seen sëriñ loolu bég naa ci ndax ñi wure su leen a bàyyi te ñooñu seen i wajur sax dañoo dem ba découragé ci ñoom mhm. ñooñu nag ñooñu nag te mhm. loolu état ko def c'est que sénégalais nu mu mën a mel il demeure un sénégalais il a la mhm. kenn wuru ko sànni dañ ko war a defaraat ko recycler loolu nag la ñu bari di daw lañ ñëpp daw nag moom la ñëw taxaw moom jéngu ne sëñ Tuubaa bi mu fi ñëw sunu ruu yi moo gënoon a tilim tey ruu reykati nit ñi sunu ruu yi moo gënoon a tilim ruu sàcckat yi sunu ruu yi moo gënoon a tilim ruu tuxkat yi yàmbaay ak naankat yi sàngara yi ndax booba am po dong dégg nga si Musaa Ka l'islam du jooy yëkkat bi génn gàddaay ci sowu jant fépp mel ni làmbaay kon booba daanaka turu julit ñoo fi ne waaye xolub julit wala jëfi julit wala melokaanu julit daanaka mu fi ci la sëñ Tuubaa ñëw nag rax tàmbale raxas mhm. u jaddidu shariatul mutahhara insha awal haqiqatul munawwara dama ñew ngir yeesal sharia bu labbi ak haqiqa bu sel bi mu nek un rénovateur nek ko xamanteni bi ni nga ko waxe dafa ñew rek jaar ci yoon yoon sa sa jaaroon kon señ kon ci amadou kora bu ñewé xamne kat loolu mo fi indi won señ bi mu ne ñi defaru bu noppi ñoom ñu taxuñu maa jokk sa classe gi defaru ñoom taxuñu maa jokk ñi defaru gud la bëgg defar lu ko daal rek looloo ko teg lu am solo gis nga señ bi señ professeur Niang je pense que yaa ngi wax wax bu am solo te c'est que parfois état Euh, taxawaayam parfois léeg-léeg euh, li nga xamante ne état war na ko def mais vraiment ay guide ay responsable vraiment ñu ciy taxaw vraiment pour redresser mm-hmm. ça c'est important lu am solo la euh, te loolu dañ ko war a encourager alors mm-hmm. dégg nga ko Abass na par rapport ak relance li nga xamante ne loolu mooy vraiment véritablement un mission lii di Al Khadimiyyah mais aussi le 11 novembre xëy na am na benn question bi nga xamante war nga ko parce que am na bëgg naa ko interpeller également justement ci vraiment perspective yi ak li nga xamante ne loolu mooy seen relation ak euh, sëñ bi donc di sëñ Mountakha Mbacké mais justement ñu bàyyi la d'abord. waaw euh, euh, comme ni nga ko waxee. Kandé yaakaar naa ne développé na ci li nga xam ne rek moom lañ ko doon xaar historique bi def na mm. yëpp. Mm. mais man dama bëggoon mu ñëw taxawal ma ci 11 novembre bi nan ngeen koy waajee ak lan mooy thème bi ak. Mm. solo si sax wax nga ko amaana. parce que ñëpp dégg nañ ko mais waajaay bi organisation bi nan la. question bu am solo nga laaj. sëñ Cheikh Amadou

seigne touba julli fa ñaari rak yu historique yo xamne ñiko xamne nañ man 2 heures de temps ndax surtout baqara tari ak ali imran mu ñaari saar yi gëna gudd ci alquran tok def bax yar solo xat jël tout son temps te seigne touba bu jangal amut ma ngi sama bir salon amut bir salon gouverneur la am day tajwid day bolé ahkam yi nga xam dafa wara genn ba nut bolé tafakkur ak tafahum nga xamne day jox sun borom xaq ji ko war sik motax julli gu gudd bis bobé nak mom la cheikh karam bakki tan muy jour anniversaire ndax mom ce qui est bizarre moy mom mm. néna wujurum jurum laaj nako mom xamu bisum juddu Ah. laaj na ko nijaayam xamuñu ko. Hmm. mu ne kon Sëñ Tuubaa le 5 septembre la ma tànnal. bi 5 septembre bi passé bi mu waxee alxadimiya. Hmm. matul 2 heures de temps ñu ngi ko wax ay 18 heures lañ ko lañ ko prononcé. Hmm. avant 20 la ki nga xam ne mooy Sëñ Tuubaa ci kaw suuf Cheikh Mamadou Mountakha yebal ab sëtam

ndax xam nga montre montre yi bokk heure xam nga lu ko montre yi baax yëpp ñoo bokk mm-hmm. heure si mu taxaa sëñ tubaa rek la yëg loo yëg ci sëñ tubaa boo ñëwee fekk ko ca kaw mm-hmm. yi mu wax sëñ tubaa sax nit ñi mosuñu ko dégg mm-hmm. fi mu teg sëñ tubaa kenn mos a dégg ci àddina ku wax ci gémmiñam ku teg noonu sëñ tubaa Cheikh Amadou Koura Mbacké noonu nag noonu la mel moo tax ñoom ñaar dañoo mel ni péri ciseau dañoo mel ni ñaar ñu ñaari jëm kenn ñom ñaar ben lañu mhm. mo waral moom mu nekkat kon dana yalla mhm. man 11 novembre bi mhm. ma tan muy date retour de jël seigne Touba ma tan ko defé ko Touba ngir sargale ko Cheikh Mamadou Mountakha gis nga seigne biñ ko koy xam nga lu mu jëk wax da na Cheikh Amadou Karam bakki ñu suma digëté diggante moom du tay demb la ngémmiñ gam ma jëk yone 1995 fàttewu mako ko ngémmiñ mooy ab biche seigne bee ko ray ci loxol bafam seigne Mamadou Cheikh Amadou Karam dem rabb nee na suñu doxaane booba 95 domi seigne Touba yaangi fi samay magangi fi samay kilifa ngi fi mu rom ñëpp ñew jox mako ko kon booba boba ci la ci la tàmbali am yëgee ci man jóg na déplacé moom si Muntaxa nekkagul xalifaab sëñ Basiru nekkagul xalifaab sëñ Tuubaa ñëw di seeti si Muntaxa si Cheikh Amadou Kara Mbàkke ñëw këram ngir xamal ko ne damaa ñëw ngir sant si la jàppale la ci liggéey bi kon moo tax ren gii sargal lañ ko tuddee sargal Cheikh Cheikh Mamadou Muntaxa Mbàkke fas ko yéene defee Tuubaa mm-hmm. ànd ci ak ñëpp nag moo waaxee sufu tarxee sëñ Yuusu Njudu sëñ Yuusu Jóob ak waa Muxaddamatul Xidma yeeg waa Rawdu Rayaaxiin ak kuréel yi nekk Touba yëpp ak waa Darul Moxti jërëjëf nga xam ne moom loolu moom ren insha allah lu kenn mës a gis lay doon ñu ngi ko defee ci kër Sëriñ Touba gi nekk Daaru Manaan mhm. Cheikh Ahmadou Kouramba dafa seen déplacé wu mhm. def fa ay fan yu baree bare baree bëri ngir sargal Cheikh Mamadou Mountakha ci liggéey bi ak mhm. ci ni mu téye yoon wi ak tolluwaay daay bi nga xam ne ndax ñoom ñaar li ma leen wax dañoo mel ni ñaari précision voilà dëgg la bëggoon moo a tënk loolu moo tax xam naa rek dañuy euh, donc euh, da ngay jox sa laataa ñu dem ci suñu deuxième invité bi. jërëjëf xanaa hmm. kàddu gi mujj gi dal moy di waxaat jërëjëf Seigne Touba. Hmm. ndax lolu Cheikh Ahmadou Kourane na moy sa raison d'être. tout à fait jërëjëf Seigne Touba ku dégg ci mom ku dégg kon ñu ngi ciy woo ñëpp hmm. surtout waa Touba ñoo xamne bis sen bis la hmm. waa Daaru ñoo xam ne bis bi sen bis la ndax Cheikh Amadou Kora Mbacke nóoré ni bu dé sargal Cheikh Mamadou Muntaha lolu yakana mourid murid lako la defal ndax ñu ñëpp am nañu yéene sante sargal Cheikh Mamadou Muntaha. kon bu ko défé mourid yëpp lako ko defal ndax kilifa gu toll noonu nga am ko mu mat li mu doon ak crise yi traversé yëpp ci Covid bi nga xam ne crise gënu ko métti ci coowul politique lii ay Ousmane Sonko fii ak ay Macky fii coow yi ne kur mm-hmm. ak yi nga xam ne lépp yoonu jànkonte na ko ci ay jafe-jafe mu téye yoonu téye gu mat sëkk gën a gëm ñëpp sëñ tubaa gën a sóobu ñëpp sëñ tubaa jox jël jullit jël jullit ñi jox leen boppam ñëpp respecté ko tarixa boo mën a dem ñëpp respecté ko mhm. kon kooku bu jëlee lu toll ni oto jox ko Cheikh Cheikh Cheikh Amadou Koura Mbacké mhm. ñu defal ko cant sargal ko Touba insha allah ci le 11 mhm. novembre mooy date bu historique kon ñu ngi ci woo ñëpp di leen gërëm baax di leen sant ci bis bi di ñaan suñu borom yóbbuñ ci ñu ci ndaw am ñu nit ci suñu plateau ñu ngi leen alors je suis justement di euh, professeur euh, Mamadou Niang di coordonnateur euh, mouvement Al Khadimiya donc di Al Khadimia, c'est bien ça et président donc du président bi donc c'est Modou Kara alors comme nous avons fait au niveau de la région ndax ce suñu deuxième invité bi Mohamed Djibril Wad.